Boki Assalamualaikum alaikum wa rahmatullahi taala wa Yen bok mbokk interlocuteurs yi nga xamni yene setan sen site bu mag bi di Allo Dakar TV international Tay nak ñi ngi ci wat ci sen émission bu mag bi moy le grand débat le grand débat nak tay dafa dalal kangam bu mag bu bok ci kër gi ndax bok na ci li ñuy def mu ci kilifa gu mag aussi Moy Serigne Fallou Mbacké ibnu sëriñ Aliou Mbacke moom sëriñ Modou Moustapha moom sëriñ Touba ba noppi nag nekk un informaticien nekk président directeur général bu site bu mag bi ñuy wax Assirou li tax ñu dalal ko nag day doomi soxna di doomi daara di dox ci en actualité aussi en tant que nag PDG site bu mag muy Assirou moo tax ñu indi ko tey mën a waxtaan ak moom ci li nga xam ni mooy xew-xew. ak li nga xam ne moom mooy lëmbaaji réew mi ci fii ñu toll muy affaire daara yi ak leneen lu ñu mel sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëriñ Assane ñu ngi lay ziar di ziar mbokk yi nga xam ne eh, ñu ñuy suivre ci Allo Dakar eh, di nuyu aussi seen directeur général di Bounama Fati eh, di ku baax. Euh, kon ñu ngi lay nuyu daal di diglu say question mhm. sëriñ bi xam naa ni question yi moom bi ci njëkk mooy comme ni ngi nekk ci actualité mhm. euh, gis nga démb euh, li nga xam ni moo fi xew muy sëriñ fàllu mi nga xam ni jàngalekatu alxuraan la mu ñu tudde ko sëriñ fàllu Guèye sa turandoo mhm. nekk fa ci daara ju mag ji nga xam ni mooy kokki te kilifa yu bare bari ci réew mi génn fa li mm, tax ñu téye ko ak ñeent wala juróom ñi mu àndaloon mooy ci wàllu jéng yi nga xam ne danoon ko jéng ndongoy daara yi donte nekkul ci lu bees ci li réew mi mm-hmm. ah, bi ñu leen bi ñu ko yóbboo nag war ko gisee mm-hmm. ñu gis ni kilifa diine yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy jàngal alxuraan ñi jaar ci daara yi ñëpp ñëw fees ci tribunal ba fële à Louga ñu mujj ko jugé dégg nañu wax nañu sax ni bàyyi nañ ko mm-hmm. ñu bëggoon xam ban taxawaay ak ban gis-gis nga am ci sëriñu daara bi digganteem ak ndongo yi ak digganteem li nga xamante ni moom la nguur gi taxawoon ngir ñu mën koo juger te mu am lu bari yoo xam ne influence la wala ci eh, waxi sëriñ bi wala ci waxi ay kilifa yu fa teewoon ba tax ñu bàyyi ko ban gis-gis nga ci am. waaw jërëjëf xam naa kooku sax eh, sëñ Xaadim Gueye la tudd mhm. te fi mu nekk ak daare ko kii aussi xaw nañoo sorente wuñ lool waaye njaañ la mhm. eh, may préciser loolu rek di wax rek ne nag alxuraan moom dafa nekk lu diis. loo xamante ne ku ci nekk man ngaa am tolof-tolof boo xamante ni ni nga ko ci am ndax lu baax moo jafe booy xool saxaaba yi sax am na ñoo xamante ni lu na daj nañ ko ci ci alxuraan lu na def nañ leen ko ci euh, suñu état yi nag euh, ñoom laay xaw a jox tor foofu parce que lu mel ne alxuraan euh, te ni ko sëñ Mountakha waxee réew mi quatre-vingt-quinze pour cent ay julli lañ ay musulman lañ kon war nañoo mën am ci ñaar école bi mi ngi fi alxuraan bi mi ngi fi euh, ku jël sa doom dugal ko école ñu dooleel leen ni ñuy subventionné école yi ñu subventionné daara yi ndax bari na ñoo xam te ne dinañ njëkk ci daara ñu ne ñëpp jaar nañ fi mokkal alxuraan dugg école te boo ñëwee sa xel mooy gën a neex sax ki kii kii njëkk dugg école te réussit bi nga xam ne am na ci om d'affaires yi nekk ci dëkk bi ñëpp ay doomu daara lañ. boo gisee sëñ bu Babacar Ngom no sëñ bu ay abla Ablaye Sénéko ñoom ñëpp jaar nañ ci daara njuga kabe ci li mbay ay produits yi daar lañ te liñ ci réussir bari nañu jaar ci école yi tubaab yi sax réussiruñ ko kon li ñu war a def mooy tabaxal leen seen daara yi nga xam ne euh, sàkket la ñu defar leen ko ba mu baax chaque année ñu subventionné leen ndax loolu mooy wane ne xale bi nekk ci école bi gënul xale bi nekk ci daara ji choix la ndax diine dafa nekk lu am solo boo jàngee sa diine di ko mën a defar sa àdduna ak sa àllaaxira kon jéng yooyu ñuy wax lu fi yàgg la te mm, dañ leen di punir la rek pour quelque temps pour ñu mën a toog mën a mokkal ñun ñëpp jaar nañ ñun ñëpp jéng nañ te bu ñu jéngut woon lañ doon wut duñ ko xam ndax ku ne am na ci sa bànneexu bopp rek ngay topp feeg nag demoo ba nekk mag da ngay boo nekkee mag ci ngay regretter lu baree baree bare kon bar na ñun jeng tay ñoy dama ci daara yoyu sax ñu leen doon jenge di ko tabaxaat di ko defaraat ndax xam nañ ne alxuraan jën dugal ci ñoom lu am solo la kon dafa bari nak organisme yo xamanteni eh, yu nekk ci biir réew mi ak yu nekk ci bitim réew yo xamanteni dañuy xex diine dañuy xex islam bo waxee ñu ne droit de l'enfance mais xala dañ koy yar ndax tay mag mi nga xam adulte la day def dara ñu fekk ci kërëm jatan ko mënoote ko ci kanam njabootam. Mm-hmm. yóbbu pourquoi pas lay ñu ñuy def loolu mag ñi kon xale boo ko teelut a yar ci loolu. Mm-hmm. tôt ou tard di ko fekk ci këram mu nekk kilifa nga yar ko. Mm-hmm. waaw kon daal loolu laay wax ne ñi nga xam ne nag euh, damay interpeller aussi journaliste yi parce que wax bi dañ koy aggraver yóbbu ko foo xamante ni àggu fa ndax bari na yoo xamante ni ñi ngi koy bind ci yeneen i mbir duñ ko lawal mais buñ ne daara ba du set nga dégg ñu ne. sëriñu daara ba violé na sëriñu daara ba def na nangam fekk nañ ci boobu moom yàmba te bët bi set professeurs yi nga xam ne ñooy euh, tëdd ak seen xale yi ci école yi kenn xamul nu mu toll. Mhm. te pourtant duñ ko wax. Mhm. ñaata élèves ñooy ëmb par at. taux bu doy waar la mais bu benn amee ci daara rek parce que tamit yàlla dafa bind ñëpp te ñëpp yemul leen ku ci nekk nag sa métier mën nga ci def erreur. Mhm. waaw kon euh, loolu daal ñu bàyyi di yàq daara ak. ay nit nekk seen ginnaaw ñuy wax yoo xamante ni euh, yàq rek la mm-hmm. ndax Sénégal boo amee stabilité mm-hmm. sëriñu daara yi la ndax sëñ Tuubaa sëriñu daara la mm-hmm. alxaaji Malik sëriñu daara la ñoom ñëpp ay sëriñu daara la ñoo tey réew mi te pourtant tubaab yi def nañ fi daanaka ñett téeméer at yoo xam te ni jàpp nañ nit ñi ay jaam après seen nit ñi mais teewul taxul ba sëriñu daara yi nga xam ne ñoo yoroon seen mm, jàngu yi di di ci jàngale seen jàng moo woy ba léegi kon nañu xam li téye réew mi réew mi nag lii dong moo ko mën a yëngal alxuraan moom fu mu ko laale jaral nit ñi seen bakkan du politicien bu woote place de l'Obélisque de du tax nit ñi jóg de mais alxuraan boo ko waxee moo gaaw ci révolution dañ naan révolution alxuraan boo ko wootee moo boo ko laalee mooy mooy doon la nga mooy yëngal réew mi ndax sëriñ bi jotul ñi nga xam ne tey ñi jàngalekatu alxuraan lañu muy sëriñu daara yi wala sëriñ si est-ce que jotul ñu gise ci seen bopp ñoom maanaam jël ay dispositions ndax tey ji boo waxee ci école euh, francais yi. Mhm. parce que dañoo jël ay disposition rek jël ay règlement teg ko. Mhm. mais nag ba pare nasaraan yi dooleel leen. Mhm. te tey bu ñu nee Sénégal nag quatre-vingt-dix pour cent réewum jullit la mais est jotul tey sëriñu daara yi ak sëriñ si ñu mën a nag gisee nag ñoom ñaar takk def aw say nag. nekk benn jël ay mesures nag. teg ko maanaam mën ko jébbal njiitum réew mi wala ñu jébbal ko assemblée générale xam ni kat sëriñu daara nii lañ bëgg ñu doxe ko. loolu lu ñu yàgg bëgg def la mais ci tubaab bi lañ koy commencé ñoo leen doon xaajale jël kër gi favoriser ko ci geneen kër kon liggéey bu yàgg yàgg la parce que xam nañ ne këru diine yi ak tarixa yi buñ ñu booloo rek force bi ñu am politicien bi du ko am ndax buñ ñu soxlaa ñoom politicien bi lay ñàkk moo tax ci jamonoy colon bi ba léegi dañ leen di divisé ba léegi mi ngi am ñu ngi divisé biir kër yi jël kii favoriser kii wàcc kii xeex yooyu mais nag dañuy sant bu baax sëñ Muntaxa ci wax ju am solo ji nga xam wax nako ak aussi ni ko xam-xam ñore ndax bim mu gis na ne tabax juma baxna yoy yep baxna way dafa engager ab université bo xamanteni 37 milliards lañ ci def mu nek complexe bo xamanteni ni da ca am doole lol lol lol lol xale bi fa lay kon aussi ci biir waxam bi ciowlu li dégg nañ ko mu wax lol na ñi ngi lu atta bi wax après dina ci wax ak xalé bi sen rôle yep ñu xol nan lañ ci taxawé kon loola nga wax moom sëñ Muntaxa xalaat bi àgg na ci moom tax ndax ñoom tamit ñooy kilifa yi te gëm naa ne balaa yàgg mook sëñ man si man soo rek xalifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew bi dañ ci waxtaan gën a sàmmat diina ji ndax nag ñoom ni président di sàmme constitution bi ñoom noonu la ñu war a ak ni islam yi doxe ndax ñoo fi nekkal yonante bi sallallahu alayhi wa kon wax jooju moom def naa sëñ Muntaxa dina ko réglé dina ci jël ay mesures il faut nag ñu bàyyi ñi force yi nga xam ne ñooy jóge ci bitim réew mm-hmm. ndax fan yi yëpp dégg nga sëñ Bay Si man Mansour ci gàmm gi li mu wax ci mbirum euh, homosexuels yi ci devant le ministre de l'intérieur mm-hmm. interpellé ko mm-hmm. wax jooju aussi ay contre-feu la ñuy def bëgg lu ko fay dégg ngeen wàllum récépissé yi nga xam ne jox nañ ko góor jigéen ñi ci réew mi ñuy def seen activité te ñooñu ñëpp lépp luy defar diine rek dañ koy xeex comme ñoom ñoo indiwaat coow lii pour man amna ci pression jaar gëna yëkëti cioli pour ñu fatalé kon señ muntaha ak xalife yi nga nyom ñom ñoy décider ci lolu bu ko défé daara yi mom ñëpp ben say lañ da ndax ñom tamit dafa am lo xamanteni xeyna li intéressé ñi intéressé leen moy mbirum aduna ñom ka nga gis mu nek ci señ daara bi daanaka kër gam yor këru sakkat gam yor mën na dem bu génn aduna mm, sax du ko tabax ndax leppam dañ ko jox alcorane ndax aussi baxna mais allaaxira euh, aussi dañ ko sóoraale ba mu ëpp ndax jàngal nit ki alxuraan benn araf rek euh, kenn xamul tuyaaba ci kon loolu moo tax ñoom mais am na organisme nag parce que gis nañ Louga niñ niñ niñ booloo keroo ci tribunal ba niñ taxawee ñi jógee Touba ñi jóge euh, fépp Sénégal ñëw taxaw seen mbokkum daara moomu ba tey jox nga ma nouvelle bi ne ma jàpp nga ne génn na mmh. kon alhamdulilah mais combat bi warta yem foofu nañu xool nu ñuy sàmmee alxuraan ji ak noonay mag ñi mm-hmm. ndax nag wax dëgg yàlla manque de repère bi dafa bari ci àdduna bi te ñun liñ dese ak liñ am mm-hmm. il faut ñu xam lan mooy lan mm-hmm. liñ dese ak li ñu xam il faut ñu xam lu ñu am kooku ci kàddu Serigne Fallou Mbacké moom Serigne ali Mbacké moom Serigne Modou Moustapha di président directeur général site bu mag bi di aloo di euh, Assirou ah ñuy gërëm bu baax a baax ki nga xam ni mooy Serigne Mountakha Mbacké ibnu sëriñ basiiru ibnu sëriñ tubaa ci wax ju rafet ji nga xam ne wax na ko te ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax bu ngeen xoolee université bi nekk Touba sëriñ mun Muntaxa ay léppam ak jàng ak jàngale da cee bokk muy nit ku bëgg ko nit ku am xam-xam nit ku bëgg xam-xam nit koo xam ne bëgg na ñëpp am xam-xam kon lii tamit da cee bokk ci noonu tamit ñu ci siyaare ki nga xam ne mooy sëriñ Babacar Mbàkke sëriñ Babacar Si ibnu alhaji mansour khalif general de tidiane nako noonu ñi ngi siar khalif généraux yëpp di len jox waccu way waaw sëriñ bi en tant que nak président directeur euh, site asiro lan nga ñu mëna wax ci li nga xamanteni ni si mooy euh, suñ mbokk journaliste yi nek ci site yi nek ci télévision yi te bu lu baax amé manam sen wax du ca du ca sori te bu ba amé ñu génn ko siwol ko wala ñu nek ay journaliste yo xamni afet en fait euh, xëy na mënuma wax la moo corrompu mais dana am ci ñoo xamante ni tey dox wane lu bon wala wane lu yàq ci suñu société suñu société bi ci la ñu gën a taxaw que maanaam wane loo xamante ni ku ko gis dana xam ne lii kat maanaam lu baax la te buñ ci dëggee war na ñoo mën a am li nga xamante ni si moom la mooy suñu mooy li nga xam ne mooy dox ci suñu société bi ndax nit ku nekk am nga culture te jul Sénégal am nañ suñu culture. Euh, jërëjëf sëñ Assane loolu aussi lu am solo la. Mm-hmm. ndax ni nga ko waxee rek. Euh, jamono ji dafa yàqu ba nga xam ne presse bi da cee joué yàqute googu presse bi da cee joué role bu am solo bu bu doy waar sax ci yàqute jamono ndax nit ki nga xam ne dafa toog biir këram mu ci accès yenn information yi te léegi ku ne gis ne technologie bi lu muy doxe média war a nekk loo xam te ni luy jàngale la ndax war naa mën a defar lu bari ndax lañ naan paaka ñaari boor la war nga cee mën yar nit ki war nga cee mën a wane lu baax war nga cee wane li mag ñi daan def mm-hmm. ku mel ne sëñ Tuba Alaaji Maalik xam ne bu set mën nga ci wax fii ba aduna tukki du jeex mm-hmm. nga ñu indil yooyu mais tey yi gën a bon rek lañu indi lu gën a ñaaw lañu indi te pourtant bu fekkoon na sax dañuy généraliser lu bon loolu ci ñëpp sax nga mën a wax mm-hmm. mais tey revue de presse yi may diglu ci rajo bi xam ne nu na dinañ ko ñàngale parfois seen patron benn journal bind ci ñoom def ko à la te duñ ko revue de presse wala kuy liggéey ci ñoom bët bu set nga dégg ñu ne sëriñu daara ba ëmbal na diw te ñoom journaliste yi bët bu set nga dégg ko ci ëmbal te kenn du ko bind kon yu mel noonu lañu war di éviter bët bu set seen kër am lu fa xew loo xam ne doo génn ci rajo bi ci weerante bi mm-hmm. mais man nag dama comprendre léegi sénégalais parce que da ngay gis ko xam day am problème mu famille rek nee naa dem tës wala naa dem xalaat wala naa dem ci émission fait verre yooyu yu dépend de lépp te yu mel noonu ba ma saan xew am na ay mag yu nekk ci kër gi yoo xamante ni du génn kër gi ndax ku ci nekk sa kër am na lu fay xew ñay def émission yooyu seen kër am na lu fay xew loo xamante ni sax boo demee xewut sa kër kon nit ñi il faut ñu xam média mooy lan ak internet mooy lan ndax presse bii di nouvelle technologie bi dafa wuuteeg sax presse classique bi ndax lo ci def du dañati du effacer mukk ba say set ak say setat dañ ci jot kon kuy bind na nga bind lu bax kuy wax na nga wax lu bax ndax yor sa presse rek ku la neex nga saaga ku la neex nga bo wax ju bon nañ xamne aussi yawmal khiyam amna na nañ xamne aussi ndax métier yi dafa nek métier yu danger muy lu melni avocat ak journalisme ñaar yëpp mën nga ci liggéeyal suñu borom nak mais ñu ci moytu 95% yi ay moom seeni mbir dara leeru ci mm-hmm. ndax corruption am na ci parfois nga ñëw ñu interview la nga wax boo demee ñu bloqué ko duñ ko génne yooyu yëpp da cee am mm-hmm. kon nañu rafetal liggéey bi mm-hmm. eh, xam ne réseaux sociaux yi njàngale la war a doon ak tasaare lu baax ak wax lu baax ku mënta wax lu baax nga noppi waa bokk yi dégg ngeen ba tey sëriñ Fallou Mbacké ibnu sëriñ Aliou Mbacké moom sëriñ Modou Moustapha mom Serigne Touba daru Khoudoos di setup Serigne Touba ah, xam ngeen ni buñu waxon domi soxna domi dara xel yi yep day nek ci njang ak jangale ba ak bay serigne bi tay nak ñu gis la ci li nga xamanteni moy euh, en tant que euh, PDG site internet ñu tuddé ko Assuru lan mo lan mo la duggal ci lolu passion la wala ak njang mo tax nga dugg ci. Ah, jërëjëf loolu sax euh, li ma ci faral di wax. Eh, bëriwul lool waaye yéen moom eh, dinaa ci sawar tey ndax eh, yow moom loo ma laaj rek dama ci sawar xam nga li ñu naan média dafa nekk meja. pouvoir te ni ma la ko waxee léegi ne suñ nit ki war na suñ borom war na cee man di feeñal dëgg ndax information dafa nekk lu garaaw tey àdduna bi dañ jël lu dul dëgg def ko dëgg jël dëgg def ko fenn bi ma ciy dugg nag parce que def naa maa njëkk def site d' information générale biir Touba ndax site yi fi nekkoon bu njëkk dañoo localisé wu rek ci màggal yi xasida yi ak njàngale bi ma xam ne aussi ñoom jàmbaar lañ ci loolu. Mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi ci bay seen waar naa ñëw jéem a xool leneen ndax Touba dafa nekk deuxième ville économique du Sénégal te ma gis politique sax bu ci daan wax. Mhm. Ablaye Wade rek day ñëw Touba ñu doog bind ci politique. Mhm. ma dëkk bi ndegam ñuy woote lañ wax deug yalla war nañu man di wax ci politique ak lan la fi état bi def vie sociale wa dëkk bi euh, ndax ay citoyen lañ d'abord avant ñu nekk état bi tamit ay citoyen lañ te ci ni réew mi doxé war nañ ci mëna bokk kon motax man jëk def premier site d'information information générale à Touba ba tay site bu ubbi Touba information générale ngay def kon loolu bi ma koy def mu aussi mooy information ñun tamit ñu am ci suñu gis-gis tey buñ bindee dara ci Touba ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu xam ne dëgg la wala du dëgg leeral ñi nga xam ne ñooy opinion bi ndax ñiy diglu Touba dafa bari ñi bëgg Touba am ay tâche ay lu négatif dafa bari ba du set ab lobby boo xamante ni nu Touba euh, defal lu ñaaw rek moom la ñuy moom la ñuy seet te ci presse bi la ñuy jaare mm-hmm. ba du set nga dégg lu ñu wax ne mbàkk mbàkk def na nangam ab sëriñ daara bi def na nangam mm-hmm. loolu nag man moo tax ma jël asiru mm-hmm. ndax asiru bi ko sëñ bind mooy bi mu dem ci géej ci asiru ma al abrar ma tànnoon tur yu bari nag. yàlla def ma euh, retenir ci jël asiru mm-hmm. def ko muy dox mm-hmm. dox ko nag dafa bari ay ay ay nuñ koy définiré mm-hmm. waaw dox ci information boo xamante ni bu dëggu lay doon boo xamante ni bu euh, informé juste et vrai lay doon kon loolu moo tax ma créé assure point net 2008 ñuy dox ndànk nag parce que man informaticien laa du ma journaliste euh, créé naa site bi ñu dem ba limite ci doon daf wax dëgg yàlla dafa dem sax ba raw sama njort ndax bu njëkk mën na ne affaire wu affaire passion moom ci dugaloon. ñu dem ba 2010 ñu def ko société maître Moussa Mbacke dafa ñu société assure global media ñu am magazine buñu ñu génne woon boo xam mensuel la créé nañ fi aussi assure children boo xam lu jëm ci donga daara yi ñuy wax ak xale yi mhm. ci lañ doon yëngu di def ay ndogu ci koor yi di def wàllu social ak genre yooyu mhm euh asiru Hebdo am journal bo xam tamit euh, hebdomadaire la euh, di dox dal, ñun dal doxen bobu mo tax ñu dugg ci ngir contrer ñi nga xamne ay lobby ñoo nek seen ginnaw ñuy bind naka non du ñu wane deug mukk da leen di corrompre dañu gis deug taxaw duñ ko wax ñun loolu mo tax ñu dugg ci media loolu mo tax ñu dugg ci media bu ngeen dëgg gisee la mo assuré bobu maamam Serigne Touba moo ko ci ndar bi mi dem ci bind mahal abrari tey nag bu ñu demee ba sëtam maanaam ubbi lu ni mel jël euh, li nga xam ni maamam moo ko bindoon jël ko def ko ci li nga xam ni ci lay liggéey kooku war naa mën a nekk ndax wolof njaay dafay wax ni ku doon ku baax ku ne loo baax doyul. sëriñ bi dernière question bi ñu lay laaj nga xam ni mi ngi jëm ci mbokk téléspectateurs yi yéen ñi faral di seetaan nag aussi seen sit bu mag bi di alu Dakar ndax gis nañu télévision yi euh, du n'importe comment la ñu wane am na ci loo xam ne bu ñu koy wane muy Sénégal am na ñu leen ñoo xam ne ñu ngi leen di xool. di leen contrôler du yu bari yoo xam ne war nañ ko teg est-ce que jaaduwul nag ñooñu tey jii ñu mën a am euh, benn pàcc boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy teg ci kaw ñi nga xam ne ñoo yor yi hmm. ba du n'importe la ñuy wane ci site yi wala ñu boo xamante ni tey def nañ loo xam ni jaarul yoon wala nekkul lu lu juste ñu mën laa woo teg la ay daan ba boo ëllëgee looy génne rek dafay mel ne lu leer. waaw loolu lu ñu war a def la mais problème bi nag site internet yi dañoo naqaree contrôler ndax dafa dépassé frontières yi. euh man nga toll États-Unis ubi site bo xamanteni Sénégal nga koy domicilier man hmm. nga ubi site internet bo xamanteni ya nga Canada te Sénégal ñokay suivre hmm. tay buñ ko brouyé fi tamit man na dox ci yeneen dëkk kon liñ mëna def rek moy euh, borom site yi xam responsabilité bi personnel bi nga xamne mo nek sen kaw euh xam nga bind ci nit ki lu ñaaw ak wax ci lu ñaaw aussi da euh, dang koy xol ku ko defon sa bop rek wala ku la ko lay metté parce que presse bi détruire nañ ay famille surtout réseaux sociaux yi ay famille ay tas nañ ay sëy yàq nañ ay diggante yu bëree bëri te ñoom respons il faut ñoo xam ne aussi suñu borom am na ndax euh, nekk ci internet bi di saaga di wax lu ñaaw euh, yooyu dafa amul benn njëriñ te xam ne nag lu presse neex neex loo ci am xaalis xaalis am na ay anciens journalistes yoo xamante ni faatu nañ bi yàgg mënatuñ dara déggatoo leen fenn il faut ñuy sóoraale loolu nit ki daal ku ci nekk na nga xam ne sa conscience personnelle yaa war a toog def autocritique sa bopp xool ne man ñaata nit laay yàq ba ci télévision yi am na ci ñi ngi wax sëriñ daara yi ak nangam nangam pourtant gis nañ ay émission yoo xam émission yi xale la yoo xam te ay sponsor lañ ci am kon bu naan donga daal dañ leen di utiliser pour des fins personnels ñoom aussi ñi ngi utilise ay ay xale yoo xamante ni ay millions millions la ñuy liggéey seen kaw te du leen ko delloo ah jërëjëf sëriñ bi dégg nañ ba tey li nga wax ci seen émission bi nag le grand débat waaw nii rek lay demee Euh, euh, ay bis bu nekk rek daañu invité benn kilifa ci kàngam waxtaan ak moom li nga xam ni mo moo ne ci réew mi sëriñ bi xam naa suñ dernière question mi ngi nekk ci li nga ni fan yi na Touba muy ñuy wax ba tudd ci alaaj Njuga Kebe te ku ne xam ne diggante Njuga Kebe ak euh, suñu wéyjur wi fi sunyi suñu sëriñ suñu yaakaar muy sëriñ Abdoulaye Mbacke ñu gis li nga xam ni def na ko Touba te alaaj Njuga Kebe doonoon murit saadix boo xam ah la sëñ laa doon wax naan alxaaji Njuga de xaw ma fu mu jëlee li mu li mu yor waaye xam naa fi mu koy def te def ci Serigne Touba sànniwoo saalal waaw ah, xew-xew yooyu fi nag amoon en tant que nag euh, DG bi nekk ci site internet en tant que euh, directeur bi yan kàddu nga ci amoon yoo ci sànni en tant que aussi doomi soxna. waaw ñaari taxawaay laa ci am benn taxawaayu directeur boobu nga wax ñun Assirou duñ fa doo fa gis attaque personnelle lu ñaaw doo fa gis. lu ñaaw aussi man duma ko déglu mhm. aussi ku ma ko envoyé du ma ko liir ndax defe naa yóbbante saaga saaga la mhm. waaye comme ni nga ko waxee rek njuga ñun fekkuñ ko fi mhm. ndax def naa bi mu nelaw ñun gëneeguñ jamono waaye ay jëfam ba léegi boo demee Touba gis ko tëli njuga forage su njuga jàkkee njuga loolu rek dafa doy ak li nga wax ne sëñ Abdou Lahad na ko ci moom ku sëñ seereel lu baax doomi sëñ Tuubaa seereel la ko sëti sëñ Tuubaa yi seeral la ko ku la saaga tamit <laughs> mooy def erreur rek loolu daal laaj am lu may wax. <laughs> ah jërëjëf ku la saaga mooy def erreur bu ñu waxee Alaaji Njóga Kebe wax doomam ju baax ji nga xam ne mooy soxna Mumi Kebe ñu ngi koy siyaar bu baax ci waajuram wow ci liggéey wu rëy bi nga xam ni ne waajuram liggéey na ko yoonu Tuubaa te du fay moom it mu nekk ci loolu nekk ci màggal nekk ci gàmm nekk biir Tuubaa nekk kenn ci kër Serigne Saliou Mbacke moom Alaaji Abdoulaye Tage ñu ngi koy siyaar bu baax a baax. di siyaar bu baax a baax tamit euh, soxna Fat Kebe di doom ci alhaaji Ousmane Kebe di doom ci alhaaji Njuga Kebe moom it ñu ngi koy siyaar bu baax a baax waaw seen émission bi nii rek lay tërale di sant bu baax a baax a baax ki nga xam ni nag moo génn fii tey ñu koy wax alhaaji Babacar caam ñu gën koo xam ci Mbay Thiam aux États-Unis moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax jàpp gi nga xam ne ñu ngi koy jàpp ci biir émission bi émission bi nag nii rek lay tërale sëriñ bi lañ ngay tàggatoo ak ñi. Euh, lay sant bu baax yàlla gisante bi bëriwut waaye fi ñu mas a gisante tamit mm-hmm. la laa xam ci yow ak baax ak gëm sa Tuuba mm-hmm. sag murit moom nëbboo ko kenn mm-hmm. sag silvisé yooyu yëpp wax dëggal am murit ku la gis daal xam ne am murit wax dëggal la toogal ñu ngi lay ñaanal ci sa émission bi suñu borom defal la ci ndam defal la ci xéewal barke Serigne Touba di sant aussi bu ma sama xarit la moom moom wax dëgg yàlla moom tamit maa ngi koy remercier di remercier waa Allo Dakar yëpp caméraman yi techniciens yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu seen liggéey ndax yéen wax dëgg yàlla bokk leen ci presse boobu ñuy wax mhm. euh, wax ju ñaaw génne lu wërta génne euh, wax dëgg yàlla doxin bu rafet moo tax ku ku ngeen ñëw ci bisam rek day day day sawaraat ngeen ñëw fa mhm. kon ñu ngi leen sant bu baax mhm. jërëjëf ñu ngi santaat bu baax di leen jox rendez bu beneen yoon ki leen ko doon présenté mooy seen mbokkum taalibe Assane Gawlo Mboup soppee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nekkoon ci caméra bi muy euh, Mbaye Diaw ki nekkoon ci euh, reportage bi moy Assane Gawlo comme nim len ko waxé le grand débat di len jox rendez-vous benen yoon ak benen kilifa jërë ngeen jëf